bés la boo xam ne ab jàmm boo xam ne daf ci doon sant boromam yàlla fonk gi mu fonk doomu aadama rocci Ismaahil dugal li nga xam ne moom mooy xarma ngir sunuy ruuxu ak sunuy ak sunuy jëmmu texe parce que nag doomu aadama wala xadd karam naa bani aadama amal naa fil barri la yàlla wax ci alxuraan euh, ñu ngi leen di di leen ziar di leen bal àq waaw xanaa question boobu rek ñu commencé ko muy. Euh, mbiru actualité comme ni nga ko waxee mbiru actualité nag bi ci jiitu mooy comme ni nga ko laajtee mbiru coowal troisième mandat bi ñu dégg nga ni dañoo dégg ko mel ni président de la république dem ba nga xam ne fa nga xam ne mooy Paris euh, di ko fa wax di ko fa di ko fa maanaam junji day loolu de moom li ma ciy tontu mooy day tegtale rek ne maanaam xam na ne réew mi waxu troisième mandat maanaam du yoon mu ko fi wax kon nag. Euh, yoon la mu dem ba bitim réew waxee ko fa euh, fa tabaarakallaahu waaye nag ñun ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar mooy lan mooy moom xam na du bokk waaye xam na ne Sonko dafa war a bokk comme xam na du bokk te Sonko daa a bokk nag te amul fitu toog ci réew mi di fi waxee waxu troisième mandat dem ba ca tubaab bi du ko fa waxee loolu moog tubaab bi du moog ñun ñu ngi koy xaar mu waxee ko fii ci réew mi parce que nag mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam parce que nag ba ñu fa ba ñu ci Ablaye Wade mbéjee moom dafa àndoon ci ñu ñu ñu ñu koy fajle ba gàddu meer gàddoom bu fekkee ne la mu doon xeex 2011 nekkutoon lu mu gëm waaye lu mu lu mu arnaqué Sénégal yi la woon ah bu boobaa na ci Sénégalais yi bàyyi xel wala ñu bàyyi ko euh, beneen question bi ma laaj mooy coowal la cinq bi ñu jëm lu jëm ci wàllu manifestation yi ndax dana réussir wala du réussir wala fi ñu ko ootee baax na am déet ak tabaski bi nest pa pas coowal troisième mandat bi nag coowal coowal euh, manifestation euh, la 25 bi nag duñ ci sori. ndax na sénégalais yi dafa jot ñu xam liñ bëgg ak kiñ bëgg ak fiñ bëgg a jëmale réew mi mais tant que xamuñ kiñ bëgg ak liñ bëgg ak bëgg réew mi dañuy tardé réew mi tardé seen bopp te aussi tamit mbir nak boko koy réglé réglé ko ben yoon mu jeex wala nga bayiko ko mom moy ciowli waye li waaye réglé mu jeex nga né do bax lolu yépp askan bi la Ousmane Sonko liko ko def nako ak askanu Sénégal askanu Sénégal li leen waron nak ñom ñoko deful ak Ousmane Sonko pour que dire vraiment muy lèr wax suñ ko waré wax dañ koy wax mu jeex wala ñu ray rayal ko parce que nak nit mënul bàyyi liggéeyam impôt domaine ñu koy fay salaire bu baax mu topp ay fiscal bañ dàq ko ba rajo ko ci ci lu jaarul yoon ngir askan bi mu ne deete waaye muy ñafe di ñafe ba dem prix fort drest assemblée nationale ñu dindi kiiraayam ndax askan bi ñu ne deete waaye muy ñafe ñafe ba nekk maire Ziguinchor ci askanu Sénégal la bokk ba tey ñu ne deete waaye muy ñafe ngir doon président de la république ngir su suqali réew mi mbooleem mboolem kum tegoon loxo mu fexe ba teg la ci siraatal mustaqim ak ci njub au contraire ñi ci am seen ak njubadik bopp loolu noonu noonu leen yàlla bindee démb ci politique tey mënuñoo baax for force buñ buñ demee ba desut lu dut wane seenu jikko bopp ñu wane ko waaye képp ku Ousmane pare pour nga baax mu yaral la boppam kooku baax nga waaye ku mu fekk keneen yar la nag kooku moom mënoo musu ko wane ba ba soppi sax baax mu des nag ndax xam nañ liñ bëgg ak xamul luñ bëgg waaye damaa gis ne marché bi fi ko ootee nii jubluwuñ ci lenn lu dul sabotage jubluwuñ ci lenn lu dul maanaam néewal doole président Ousmane Sonko ndax nag fañ ko waroon a oote dafa passé mënuñoo bàyyi bala vingt cinq 3 jours 4 jours des ci tabaski bi ñu naan dañuy oote naanam ay nañ dem dindi Ousmane Sonko Ousmane Sonko dindi ju ko jarul laaj bis jarul jàpp bis jaru ko bu fekkoon lu dogu ci askan bi lu dogu ci doomu aadama yi la bu ñu ko bëggee def ko waaw buñ de buñ dajalooyee nekkam mbooloo sacrifice waaxu dem du am toj du am xeex du am dara xanaa police lu mu lu mu yéene di yéene askanam bu tiiree benn yoon tiiree ñaari yoon ñetti di dee gisul xeer tàkk gisul dara tàkk xanaa dana yërëm askanam xam ne askan bii ñoo am seen détermination pour génn ji ki nga xam ne nii mooy njiital Pastef ñun suñu gis-gis bu gàtt loolu la woon beneen bi ci des mooy gis nañ ne F24 maanaam heure buy jàpp date day dat day xool date boo xam ne lu mënta nekk la mu koy def parce que le 10 booy xool manifestation ba mu taree booy jóg bañ am détermination pour def lañ bëgg ñoom dañoo bokk ci sëbi si sama gis-gis ndax ñoom ñoo jékki-jékki ne le nañu def manifestation pour booy arrêté pour bu le le 10 bu ñu def dara te évidemment loolu moo amul le 10 defuñ dara kon nag li xam li may sama mbokki Pastef yi mooy mbir mi suñ mbira du mbiru F24 du mbiru comme adresse Yewwi Askan Wi mbiru Pastef la Pastef nag mbir la moo xam ne ku Pastef war a cee bokk Pastef mooy lan mooy mu jaral la sax lépp parce que ki ko jiite da koo jaral léppam newul ci caaxaan newul ci njuuj njaaj newul ci fen newul ci tappale nit nag bu nekkee ci lii bu nekkee ci difficulté dañ ko war a kii buñ fàtte ne turandoom Seydina Ousmane gawoon nañ ko 40 jours ci lu mel nii Seydina Ousmane gawoon nañ ko 40 jours di ko fitnaal ci lu mel nii waaye ba 40 jours a jotee nag ña ko ña àndoon ak moom fexe nañ ba géew yi lépp luñ ko gawee woon libéré ko mu des nag ñun askanu Sénégal ndax loola danañu yitteel wala du ñu yitteel loolu ci ñun la ma tëj ak yow lenn ci actualité comme nu ma ko laajee lu jëm ci wàllu CPI muy comme ni ma ko laajee muy coowal loo xam ne yëngal na réew mi damay wax ne olof Njaay def ne ku ku ku jin ku ku nanguwul nit ilif la jinne ilif la mooy ku nanguwul waxtaan ak sa réew réewum jàmbur rek la la ku nanguwul sa réew rek la la it réewam jàmbur rek la la mooy dañoo mooy ñoom respecté wun maanaam askanu Sénégal respecté wun kilifa yi nekk fii ba ci des it kilifa yi ñi ci ëpp may wax te ñemee wax mooy nañ di moytu lekk alalu nguur kilifa goo gis jamono ji muy ñaan yàlla ñaan yàlla am nangootul lekk alalu nguur lekk alalu état ak i nger moo tax lépp lu ñaan yàlla yàlla du ko nangu ndax alal jooja impôt yu ñu dajale lañ borom di dajale ñoo xam ne dañ leen a tooñ leen tàngal seeni xol ah yokk fiskaal yi yokk ceeb yokk diwlin yokk courant boole kook impôt yi yooyu ñu jël ko dajale ko état jël ko jël ko yóbbu ko ci këri sëriñ ci sëriñ ci di ko lekk te waxuñ askan bi dëgg waxuñ état dëgg kooku képp ku ko def ëllëg yëmal xiyam na ko diyaale sa borom ak ko a doon nañ delluwaat nañ rajo delluwaat wax ak askan bi nañ rajo delluwaat bëgg askan bi nañ rajo delluwaat féetoo ci askan bi ndax askan bi lépp lu mu waroon a def def na ko ñun kilifa yi nag lépp lu ñu war a def des na nañ ko def voilà lii moo nekkoon comme actualité euh, beneen question bi mooy euh, maanaam lu jëm ci wàllu ñaan nga wax listixaar listixaar de maanaam lu war ci doomu aadama doomu adama bu nekk war nga di xollu say mbir mais ci kaw naka ngay xolloo ak fan ngay xoolee ak fan ngay aw seet nag alhamdulilah ñu ci sant yàlla yemuwuñ ci ak doomu aadama bu ñu yemoon ci ak doomu aadama rek caagante ñëpp la ñuy wax ak parce que am na ñoo xam ne yàlla may na leen nangul nañ leen seen ak may seet dafa am lu ñuy wax tabia da nga koy xam ba pare njëkk ngay seetal nit ki muy yu naar yu yi boo ko xamut ne mën ngaa seetal nit ki yaa ngi koy nax di nax bopp beneen bi am na lu ñuy wax seetal ramli moom la ñuy wax lu dem ci wàllu wala yu mel noonu nga xam ne suñ mbokku lakkat yi ci tomb lañ koy defee wala ci yu mel noonu loolu la ñuy wax ramli ramli nag seet gu wér la goo xam ne nii suñ mag ñu baax ñu daan nañ ko def mooy lan mooy seet gi nga xam ne yontu yàlla Idrissa moom la ko jibril alayhi salaam jàngaloon ci côté tefes gi ci côté géej gi ba mu ko mënee ne ko ramlil ma idrisa ramlil ko seetal ko jibril na ko ndax jibril sori na la idrisa na ko li ma gis ci ramli gi li mu génnee mooy jibril soriwu ma jamono ji may wax ak yow jibril na ko kon man nga seet gi nga xam ne sa borom moom la ko digal ma defal ma jàngal la ko kon lii mooy seetu ramli seet nag maanaam bi ci jiitu li muy li muy li muy li muy maanaam li gën ci moom nit ñi di ko def te tax di ko def mooy lan mooy nga xool say mbir xool jafe-jafe yi nga nekk mooy fi nga toll fa nga jëm ak fi nga paase ñetti yii rek moom mooy seet képp ku la seetal ba pare ne wax la say sarax nga def ko nam waree mu sangal la sa yaram ba mu set fépp bépp buntu boolal mu ubbeeku képp koo joxoñ yàlla yàlla ànd ak loola ci joxoñ ba képp ku la joxoñ yàlla damu baaraamam lii moom mooy moom mooy njëriñu seet ma ñëw ak yow tamit ci wàllu euh, lanate nga wax ci wàllu këyit tukki ku bëgg tukki loolu alhamdulilah am nañ secret boo xam ne euh, surtout li laa fi xoreeshin la li laa am na lim buñ koy bind buñ ko ci lañ ko war a booleeg incha allah bu ànd ak ndogalu yàlla ñu am fanaanoo yu ñu def ci yow ñaanal la yàlla bu ànd ak ndogalu yàlla yàlla dana si def jàppandal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam parce que mbiru mbiru mbiru ñaan dafa am yoon parce que yàlla ba mu ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen moo may leen waxul ne ni laa leen maye nii ngeen may ñaanee dafa nëbbu code bi code boobu nag pour nga xam ko décoder ko dafay fekk nga xam sa borom dafay fekk tamit nga taxaw sa borom dafay fekk nga xam fa nga jëm ak kii ñaanlu fa mu jëm lii moom moo nekkoon côté boobu bu dee lu jëm aussi tamit euh, ci wàllu nopp la muy wàllu boole nit ak nit nopp moom tamit mbir mu yombal la mu nekk mbir mu jafe ndax gis nga mbir mbir euh, sëriñ bu la ko yombalal mi ngi ko jafe parce que ma nga am koo xam ne sax moom ma nga ca bëgg a jot jotu ca te ma ngay jaaree fu nekk pour jim ca jot jotu ca loolu mooy lu jëm ci wàllu nopp nopp dañ koy def ñun 24 heures su yéexee ba yéex su gaawee ba gaaw kon su yéexee ba yéex dañ koy def juróom-ñaari fan pour nga jàpp ko il faut nga xam tabia bu mu composé ban heure lay tëdd ak naka lay doxee ak mbiru raw rawaxaanam maanaam kañ lay jooy kañ lay dugg ci waat ci moom lii fekk xamoo ko ne da mën a noobal nit ki koy nax te noob nekkul lu yomb nopp nit ku ñuul pour nga nopp tubaab jàpp ko te yow nga nekk nit ku ñuul bëgg a am am am coro ci tubaab wala faru tubaab nga bëgg koo jàpp dafa am fooy awee pour jàpp ko wala naar parce que tabiya yi bokkun naar dafa am lu koy jàpp tubaab nit ku ñuul am lu koy jàpp kenn ku ci nekk am na lu lay jàpp am na loo xam ne mooy sa culture moo nga gëm boo ko bàyyee da ngay liggéey lu ba dee sa xaalis jeex ci tàkk doo gis benn résultat lii moom moo nekk côté boobu nga laaj ma it lu jëm ci wàllu wërsëg ubbeeku ma ne la wërsëg nag moom ñu ngi ciy defar loo xam ne jaaroo secret bi nga xam ne mooy secret law la ñeseen secret moom la jab la ñes jaaro bi nag dafa am ñetti mbir yu muy ànd ak parce que ni mu mel mi ngi mel ne oto bu taxaw amul essence pneu ya baaxut amul moteur du daw jëmmi oto donc jëmmu jëm moo fa nekk mooy jëmmi jaaro boo takk te amul maanaam li nga xam ne moom mooy cangat ñetti cangat yi muy ànd ak muy cangatu ubbeeku muy cangatu euh, maxabba muy muy muy cangatu fatxu ak cangatu maxabba mooy cofeel ak cangatu protection muy karaange ñett yi lay ànd ak ñett yi mooy àdduna moom lañ tënkee dunia mooy lan mooy boo amee protection ku ku dal sa kaw rëkki la koo dal sa kaw mu yëg ko boobaa ñëpp danañ la ba xel te dañ la moytu danañ la may jàmm bu fekkee nag maanaam wërsëg bi dafa dafa ñëw ba ëmbal la maanaam lépp loo loo loo laal muy wërsëg fépp foo teg sa loxo yàlla yàlla teg fa barkeem fan laa xam ne mu des nag li ñuy wax bayre parce que nit balaa jëflanteeg yow faaw mu bëgg la faaw mu sopp la faaw mu am ci yow confiance totale sax du mën jëflanteeg yow te loolu bayre moo koy doxal kooku nag ñu indil leen secret jaaro bii nga xam ne képp koo xam ne am nga ko mu ànd ak cangat yi incha allah noppi ngaa ñàkk parce que damay dégg nit ñi naan jaaro jaaro jaaro jaaro lu ci lu mu dafa am yoon dafa am yoon amna benen façon jaaro bo xamne nit mbir mom du mbir mu ni wax ci télé parce que mbiru raw xaani yu la koku dañ ci jeflanté nit def ko ci milliardaire dañ ci jeflanté nit def ko ci millionnaire dañ ci jeflanté nit dimbale ko ci zahir no batné inshallah bu neex yàlla koku benen anam la parce que lolu mbiru raw xaan la du lu ñuy wër ci écran parce que mbiru raw xaan heure boo ko ci écran mu fay jëmelé ci yow mbir la mo xamne ne discrète la nit ki da fay soxla nek ci def jafe-jafe wala ki difficulté wala wër boy bëgg dé wala am jafe-jafe wala muy lijjanti ay mbir wala mu bëgg ay projet yo xamne bëgg na mu soti wala mu nek ci projet yo xamne ne dafa bëgg mu soti koku bu ñëwé jëflanté ak ñun ñu awale ko ci yoon bobu inshallah bi xawlulaay wa quwwati dana ñett ndombay muy ndombay karangé gis nga sëñ bi jamono ji nak manam euh jamono la jo xamne ne ku bëreewut ñu bëré daan sa kaw bal perdi bari na coowul coowal réew mi bari na wax ji bari na ndomba yii ñett ndomba yii képp ku ko am incha allah bi xawlulaay waxut yàlla dana la aar ci zahir aar la ci baatin képp ku tëkk boo ko jëmee saako ko ndey képp koo xam ne aussi tamit maanaam waaxu na jëmale ji lu bon jëmale ko ci yow ya billaahi warabul kaaba yàlla delloo ko lépp loo dugg ci sutura ngay mujj yàlla du la gàcceel mukk bi laa yem di te képp koo nar a gàcceel am gàcc barke Cheikh na Ahmad Tidiane Serif képp kum nekk ci sa ndigg képp ku dara jël gàcce teg ko ci sa kaw moom mooy mujjee ci gàcce képp ku ne nar a toroxal torox képp koo xam ne nar na laa liggéey wala mu sànni la kort wala lu bon wala mu nara laa toroxal wala yu mel noone billaahi wa rabbul kaaba dootu dootu la talati lii lañ indi woon lu jëm ci wàllu côté ñaan yàlla ñu ñëw ci wàllum faj parce que dañoo am ñaari méthode dafa am lu ñuy wax ñaan yàlla am lu ñuy wax faj ñaan yàlla mooy faj soxlay jàmm bi côté yi ak secret yu mel noonu faj lan faj nag mooy lan mooy médecine traditionnelle médecine traditionnelle nag nit mën na koo xam te du mën ñaan yàlla nit mën naa mën ñaan yàlla te du xam médecine traditionnelle benn bu ci nekk ak yoon boppam la nit day mën médecine traditionnelle rek ñu koy ooyee sëriñ sëriñ mooy ki nga xam ne dayal na jëmale si boromam di jubbanti nit ki nekk arif billah xam yàlla xam naka lay diggante dindee diggante nit ki ak boromam waaye naka lay taqali nit ki ba nga xam ne bu ko neexee fëgg boppam ne man maay yàlla te kenn du ko weddi waaye ku ko weddi it yàqu waaye ku ko laajte it xam la mu wax mooy lan lii moom mooy sëriñ mooy aarif billah fekk demoo ba àgg fa ba sës ko di rëkk di moom muy muy yow kooko yow des nga nekk sëriñ kooko yow maanaam euh, ab nit koo xam ne nga rek am nga xam-xam wala yu mel noonu clinique bi nag daf leen indil tey ñett ñett yi bi ci jiitu mooy maanaam euh, lu jëm ci wàllu maanaam hémorroïdes ballottement ndoxu siti bi leen clinique bi indil kii dafay traité hémorroïde di traité ballonnement traité ndoxu siti ci diiru une semaine hémorroïde danay tere am doom góor danay tere am doom jigéen hémorroïde danay delloo awra góor ngay sëy ci kanam sa awra bi dellu hémorroïde danay def picc boo xam ne day nekk ci gannaaw di xasan wala muy génne deret wala booy dem tiwaale loolu mel noonu ballonnement mooy def biir bi di xurur ngay dem woon ak dara du génn ngelaw mooy génn ndoxu siti mooy def sa suuf tànk yi di xar di xasan sa nopp yow tamit di xasan sa bëri di xasan ngay fudd di miir di xiif doo mën a lekk ak yu mel noonu da koy def day def aussi tamit di maanaam gémmantu di sa nelaw yi di daggaat loolu maam ndoxu sut da koy def émorite da koy def ñaar yëpp daf koy dañ koy def kon nañu nañ faju ji émorite te génn si caaxaan parce que doomu aadama boo gisee ñu indi lu gën ci yow dawal nga jiim ko sàkku ji numéro 78 ñaar yi mooy sama numéro ku soxla ñaan yàlla wala jëm ci loolu numéro expresso bi terminé 18 18 bi mooy lu jëm ci wàllu clinique bi ku jëm ci wàllu faju bu fekkee wàllu ngóora la muy impuissance sexuelle dafa sonal góor ñu bari koku traitement mo nek ni moy kaddu keur gi bu fekke bitim rew la ci pot bi lañ koy def bu fekke bir rew mi la ci bitel lay nek ñu defar ko ba baax jox la ko ak yi ànd ak wax nañ koy jëfëndiko inshallah bu neex yàlla kep bépp góor bu ko jël di nga mëna jëflante ak sa soxna 30 minutes te amul benn info secondaire te amul benn problème bo xamne bu lay yàq la wala yu mel non bu fekke ko xamne la manam dafa yor lu ñuy wax arthrose moy yax yu métti ci lay tëjee ndax temps bi xatna guddina euh arthrose mooy yax yuy métti ndigluy métti oom yuy métti wala loos buy métti wala yax fu mu mënti métti ba nga toog ci lalu paralysement kooku bu ñëwee ñu jox ñu jox ko traitement arthrose bi ñett yu bokkul la ñaari dañ ko ciy du benn bi dañ koy naan ñett yi bu ko jëlee incha allah bi xawlilaay wa quwwati ci kattanu yàlla ak mbaaxam yàlla dana saafara mboolem jàngoroom incha allah ñu ngi ñaan Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm yàlla wàcc fi tawfiq ak taysir wàcce fi barke wàcce fi xéewal def fi jàmm ak salaam génn ci fitna yi inil ñu njit yu ñu yeneewul fitna te yene ñu jàmm yàlla defal ñu sutur ci aduna ak sutura sutur ci alakhirah lépp lu ñu yottu yàlla jotlo ñu ko yàlla yagal fi suñu kilifa diine kep ko xamne nar na ñëw ngir toroxal Sénégal yalla la yàlla toroxal kep ko nar collaboration ak tuba bi ngir yàq Sénégal yalla la yàlla yàq ak kom na doon yàlla fi yàlla wàcc jàmm ak salam gu mat sëkk képp ku ñu soxla boo ñu contacté ci numéro yi dañu jot neexu ñoo jot nag waaye képp ku boo wa rahmatullahi wa barakatuh ñaari boo ci oote di nga am numéro clinique bi moom mooy affiché ci bande bi noonu képp ku ñu oo rek incha boo ñu jotut di boo jotee suñu secrétaire dana la wax garab boo soxla nu muy nuñ koy jëfandikoo nga xamee ko noonu sa aajo faju ku soxla lu yëm ci wàllu xaalis wàllu këyit wàllu liggéey wàllu nopp wàllu maanaam faj soxla bu mu mënti doon boo ñu contacté danañ la dimbale ci loolu jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh